asalaamaaleykum mbokk internet yu Dakar midi yéen a ngi seen biir émission midi mode midi mode nag mooy seen émission boobu nga xam ne dañ ko jagleel tailleur yi coiffeuse yi maison esthétique yi salon de massage yi vendeur de bijoux yi tey nag ñu ngi fii Colobane ci sant yàlla boutique Maïssa et frère ñëwoon seet si leen ñu xool tey nañ leen dugg ci biir tey ñu xool waa sant yàlla lan lañ ñu indil

waaw sëñ bi bëggoon nañu xam lu tax ngeen def choix wu tuddee boutique bi sant yàlla. waaw sant yàlla moom loolu moom du question mën naa indi question tamit ndax sant yàlla moom boo gisee mooy lépp rek da ngay delloo lépp ci loxo yàlla rek sant ko quoi vraiment wax dëgg bi moom mu ngi jugee suñu directeur muy Maysa vraiment moom moom mooy mooy mooy mooy borom boutique bi xam moom waa dégg ngeen li Baye Aada wax foofu nee na ñoom sant yàlla moo tax ñu gën ko dolli moo tax ñu def choix wu tuddee boutique bi sant yàlla mais bëggoon nañ xam aussi lan moo tax ngeen def choix si tissu. vraiment daal ñu lépp lu ñu jël nekk loo xam ne choix bu ñu yàggee rêvé la quoi vraiment ba yàlla def jaamu def xewal fi jëm ni moom macha allah vraiment ñu ngi sant. kon bu ma déggee wax ji saa veut dire que yéen da ngeen judd ci famille buy jaay tissu. waaw ko dañoo judd ci famille buy jaay tissu waaw mu nekk loo xam ne aussi tamit mën nañu yem la mën nañu yem danoo la ndax ci suñu ay maam la ci suñu ay yaay suñu ay pap suñu ay ndijaay macha allah mën nañu famille bi mbokk ñi seetaan léegi ngeen li bàyyi aada wax foofu ça veut que ñoom bu ñuy jaay tissu du loo xamante ne dañu ñëw rek dugg ci nii dañ ko donn juddu ci yaru ci màgg ci mais bëggoon nañu xam tamit yéen nan ngeen di defee choix wu tissu yi. spécialiste boo te suñu ay création nag ñu boo seetee dañu dem partout dans le monde ñu ngi fépp ñu ngi siin ñu ngi Dubaï ñu ngi Inde fii partout dans le monde quoi vraiment fépp nga xam ne mën nañ fa dem pour am ay tissus yu rafet pour ñëw bégal Sénégalais dañu koy def ndax loolu suñu suñu suñu bonheur la suñu mën nañu ko bonheur la suñu waaw ndax dafa nekk loo xam ne ñun bégal nit ñi moo ñu tax a jóg lu ñu góor ñu jigéen vraiment ku fi ñëw moom dina am choix mu mënti doon. voilà moo tax dañuy jaral ñu waaw génn dëgg bi waaw yóbbaale spécialiste boo xam ne juste rek pour ay design moo ko tax a jug allah dafa ñuy jaral mooy loolu lu ñu jaral daal ñun ñoo ko xam. ah kon bu ma déggee wax ji yéen ça veut dire que yéenay def seen i design. def seen lépp dem def euh, ci euh, def commande bi. yéenay def proposition tissu yi ñu leen di defaral. si am sant yàlla boutique boobu c'est dégg ngeen li mu wax foofu nee na tissu yi sant yàlla boutique fii rek la am léegi est-ce bëggoon nañ xam tamit yéen tout de tissu ngeen di jaay da ngeen def brodé soie. tissu moom macha allah lépp looy wër ci xeetu tissu yi ci boutique bi muy tissu jigéen surtout les mariés macha allah ñun moom mën nañu dañoo nëbëral loxo ñi nga xam ne dañuy def cérémonie mariage baptême macha allah loo boo ñëwee moom. yow bàyyee ñu sa bopp rek dañ la defal suñu menu la proposer tissu yu rafet en même temps dinañ la wax li ngay def li ngay la defal choix quoi noo mel boo léegi ci choix boobu nga wax est-ce que da ngeen di xool nit ki temps bi mu am. Mm-hmm. wala est-ce que dina leen arrivé aussi nit ki am mariage. Mm-hmm. ñëw gis tissu njënte mm-hmm. mu ne moom bii la bëgg sol yéen nan ngeen di dundee cliente boobu pour mën ko convaincre. macha comme li ma la wax sànq rek am na loo xam ne dret la si ñun xam nga moo tax nit ki boo ñëwee rek dañuy xam yow li nga bëgg exactement dañuy xam yow lan moo la tax a jóg comprendre même boo ñëwee physiquement ñi ñu dañ lay xool jàng la ñun ñu yaa ngi ñëw ñëw mais ñun dañu lay jàngale ci saa si xool lan ak lan lañ la war a mën a proposé xam nga boo ñëwee soo nekkee teint clair ma nañ am tissu ñu la proposé boo nekkee teint marron pareil xam nga teint noir même chose waaw boo ñëwee daal ñun xam nañu lu ñu lay mën a proposé ba nga xam ne yow boo génnee sant yàlla sa xol dina seet ñu loolu mooy suñu mbégte quoi vraiment ñu jaay la nga génn say selu rafet ñu loolu mooy suñu bonheur voilà léegi yéen par rapport ak seen commande yi ngeen di am mhm. euh, seen euh, arrivage yi par combien de temps lay ñëw wala tout le temps da ngeen di am arrivage yu bees ñu moom chaque chaque 15 jours bagage mu ngi si biti chaque 15 jours ndax suñu fournisseur bi du xaar sax ñu naan bagage yi moom lépp dañ ko organiser su bagage bi kii dañuy kii xam nga vraiment chaque 15 jours moom arrivage day ñëw muy indi sa muy jigéen xam nga vraiment boo ñëwee moom loo ko bëggee mooy loolu waa waaw dégg ngeen Baye Ada lu mu wax foofu nee na arrivage ñoom dañuy am tout le temps arrivage bu bees léegi wax na ci biir waxam aussi ne yére góor donc ça veut dire que yéen da ngeen di jaayale ay tissu góor. gis nga comme si par exemple bi tudd. voilà gis nga dañ ko designé bu la neexee nga ñëw ko mu simple bu la neexee nga def ci banana même turki njaareem dañ koy def fil à fil moom lépp la mën aussi lii di boo aussi dañ koy am mooy ci sud Dubaay bi ay lin aussi pareil la même chose dañ koy am ci góor ñi moom tamit pareillement Getzner Bazin Riche VIP Palman lépp am nañu ko waaw loo bëgg rek boo ñëwee fii di nga ko am ci daal voilà Euh, léegi bëggoon nañu xam ndax yéen da ngeen di jaay en gros wala détail ngeen di jaay wala daf leen di arrivé aussi ngeen am arrivage bu bees woo seen clients yi jaay leen. si non ñun moom lépp la ñuy def boutique sant yàlla boutique lépp lay def dañuy am en dañu am détail xam nga su dee da nga yor boutique di jaayaat soo ñëwee incha allah rek dinañ la mën a jaay nga xam nga su dee aussi da nga ñëw dugg ci business ñaw pour yóbbu ay tissu pour jaay. wala jël ci si xew ah, dégg ngeen ni ñu wax loolu commerçant yu mag yeeg yu ndaw yi ku ci bëgg arrivage bu bees rek boo ñëwee sant yàlla di nga am li nga bëgg macha allah léegi bëggoon nañu xam aussi par rapport ak seen personnel bi ndax da ngeen am personnel yu qualifié ci tissu wala yéen yéen a leen di former ci choix bi ñuy defal client yeeg yooyu. waaw si ay personnel yu qualifié lañ aussi ndax ñun moom vraiment comme li ma la wax nii rek kenn jàngul métier bi dañuy judd rek nekk ci xam nga vraiment moo tax nit ku fi ñëw aussi en même temps boo dee mokkal nga sax di nga gën a jàngat ndax fii lu fi am mën nañu ko amul fenn fii déjà boo ñëwee dinañ la toppatoo dinañ xam ci loo ci loo nekk client bu dugg si rek dinañ jéem a xam yow yow lan moo la tax a jug mais personnel boobu boo gisee ñu mën loolu même bu doon jàng nañ aussi dina ñëw fekk ko xam nga waaw ndax affaire bi aussi tamit euh, doo tëb tëb rek doo tëb tëb rek mokkal li ngay mokkal dangay am fooy jaar dekku di ko benn benn xam nga yàlla def jàmm léegi par rapport ak seen clients yi nga xam ne dañu nekk ci région yi sori est-ce que da ngeen am yeneen boutique yu yu nekk ci région yi ñu leen fay représenter bientôt bientôt incha allah dinañ euh, dinañ ubbi ay sox ci ci région yi mais actuellement nii Dakar lañu ñu am fii euh, quatre boutiques. macha allah benn bi mu ngi Sandaga euh, trois yi ñu ngi Colobane trois yi ñu ngi Colobane mais liy ñoo bokkul quoi benn bi mu ngi Sandaga ri conk boobu xaadim moo fa nekk xaadim ak tons ñoo nekk foofu moom boo fa demee aussi tamit dinañ la toppatoo dinañ la defal ay tissus yu rafet vraiment li nekk fii moo nekk foofu Colobane moom ñetti boutique yi ñuy ngi fii waa dégg ngeen loolu. Baye Aada wax ci euh, boutique yi bu ngeen demee Sandaga am na boutique bu ngeen ñëwee Colobane am na ñetti boutique donc fi buuxante bi du fi am ku ñëwul fii rek di nga dem ci beneen boutique léegi fi mu nekk nii Baye Aada ñu bàyyi la na nga présenté ñu seen arrivage bu bees bi choix wu tissu yeeg yooyu ñu xool waa ba dañu bàyyi la nga présenté ñu tissu yi yi bees yi ngeen am. léegi euh, nañu njëkkee ci tissu xew yi comme ñu ñuy wax ay tulle design et vraiment wala léegi ma njëkkee leen wan bi bi travail bi à la main la xam nga bii solution la tudd vraiment gis nga tulle bi ak design bi ni mu waaw te naa ne ko tissu tissu lépp la quoi vraiment. mën nga mën nga mën sol ko mën nga ngénte sol ko xam nga. voilà ndax dafa ñu dem dîner de gala tamit. bi beneen style mooy til dafa sànni dafa sànni ay fleurs am. voilà ay perles la def perles bi ak fleurs yi aussi. te am na couleur yu nekk. donc comme ni ma la ko waxee dafa dugal ay perle euh, cristal bi gis nga kii bi perle fine la am même temps ay fleur am sànni ay cristal yu sew mais doo ko gis nag xam nga voilà bi bleu turquoise bi la mais am na aussi ak plusieurs couleurs dañ leen wan nii rek pour échantillon bi xool mais am na ay couleur am en même temps voilà maanaam kon alma doore boobu daal ku ñëw couleur boo bëgg di ko am voilà gis nga gis nga tissu bi moom ñaari design la ko la ko la ko grand bi liggéeyee ndax boo seetee dafa def design ci kaw ak ci suuf. dafa am finition ci kaw ci kaw. ci kaw bi dafa def genre espace nii rek sànni ay fleur am ci suuf gi si la design bi nekk yaa ngi dégg moo euh, benn benn finition la ci suuf. ci kaw mu sànni ay euh, ay ay fleur am noonu quoi. temps yi nag dama gis xale yi ñoom dañu dañu kii fonk teint bi. waaw waaw waaw si si wala corail bi wala champagne bi léegi boobu. couleur yooyu ce que am na si. gis nga couleur champagne bii. waaw xoolal bii. bii nag mooy def buzz. waa dégg nga lii bi moom Amina tuddee naa la. def ah ah ah. léegi ku ñëw. waaw léegi na nga ne ana tuuti lii gaaw leen ñëw sant yàlla nag xool leen sama tusi bi vraiment li mu sol xam nga teint noir da jàpp la te li yëpp ay new design la ay new design la vraiment doo ko gis fenn sant yàlla boutique sant yàlla boutique waaye dafa mel ne noir bële am na ñam tamit si si mën na nekk de Omar bi am na noir boobu waaw waaw ñii moom pour teint clair la kii tuddee nañ ko madame Gueye ah waaw lii moom waaw waaw sama jéeg bu baax boobu lii lii soora ko tuddee vraiment bi tuddee nañ ko madame Guèye. te dafa mel ne dafa am finition tamit ci kaw ak si suuf. deux lisières la def la waaw. finition baa ngi nii ci suuf dañu perlé ko ni voilà tu as bi aussi y' a y' a sept couleurs différentes. Mhm. comprendre nga voilà léegi Omar alma argenté bi. tissu bu argenté dafa raar argenté waaw. daanaka kenn xam nga marié mën na ko sol. marié du blanc rek la war a sol. parfois nga fël ci. loo ci xamul tissu yi. travail bi dafa am solo ci tissu yi ci ndax nii ba see tey travail à la ni ko liggéeyee bokkul quoi xam nga. boo yàggee jënd tissu di nga xam valeur tissu yi yan genre tissu la. xam nga vraiment te ci dafa raar boo ko solee sa xew doo gis kenn ku ko sol xam nga nit ñi nag dañ naan jaaykat yi da waxu jaaykat rek la ñuy def yaa nga mën naa mais xamuñ du ñu xam nu mu demee. voilà amat amoon bi nii waaw sa ginnaaw de. waaw waaw waaw waaw waaye ma wan la bii. waaw bii tam ci collection bi la bokk yëpp dama ko doon kii mais xam ngeen comme waa Dakar Midi moom. waaw suñu ay partenaire lañ xam nga. dëgg la lu yàgg dañu rek ndeysaan balaa daraay génn ñu njëkk ko wane fii xam nga. ñu njëkk ko voilà gis nga. mu ngi nii waaw waaw vraiment tissu bi sànni na ay lii ban couleur la ko tuddee genre couleur nit jege na ko. ndax xam nga ba léegi dafa dugal somo mais demul dem nekkul somo quoi moo tax dafa dugal couleur nit bi quand xam nga voilà def ay perlage nii xam nga yaa ma gën a xam daal mooy loolu war ma xool boobu bi bii tamit macha allah ma nga ca ma xool ma xool bii jëlal lii nag am lii moo tax ñu naan caw sa xiir. déggal li. jeex na su si bàyyi xam nga gis nga ni muy la sa bii moom ëpp na. ah xool ngeen dégg ngeen loolu waa sant yàlla. wax ci caw sa xiir bii moom. mooy tissu bu bees bi dernière nouveauté bi mujjee ñëw. bii daa mooy yu nekk. bii yaa sept couleur couleur bu ci nekk dañ indi la ñuy indi. xam nga fan yii moom boo seetee ay couleur nit moo xew xam nga. ay champagne ay somme clair corail et xam nga. genre couleur yooyu ñoo xew. tissu yëpp kuy ngénte mën na ko sol ku ñuy marié mën na ko sol. gis nga kii aussi jëlal li bi tam dafa mel ne nouveauté la bu bees la. kon ko jëlal li Amina. couleur bi rafet na. sant yàlla daal fi mu toll nii mënuñu wane ko si fi mu toll affaire yi nii rek. mais na ngeen ñëw ñun daal ñu ngi Colobane marché bi comme ni ma la ko waxee sànq ci début bi euh, ci côté caserne bi soriwul foofu. wala nga jël suñu numéro de téléphone yi moom aussi tamit. pour mu gën a yomb ci yow quoi. waaw mbokk yi gis ngeen Baye Ada tissu yi ñu indi léegi wan nañu fi ay couleurs yu rafet nag yu différent aussi façon couleur boo bëgg am na fi mais bëggoon nañu xam aussi ndax yéen a ngi préparé été bi ci couleur yi ak yan couleur mooy gën a dox ci été bi. waaw loolu tamit dañ ci bàyyi xel bu baax loolu boo gisee man la dañ ci bàyyi xel mooy li ma la wax sànq rek ndax jur sax par 15 jours lay bagages yi di ñëw. xam nga moo tax it bi euh, été bi di ñëw dañ ciy bàyyi waale xëy su ko defee couleur yi aussi yi xam nga ndax Sénégal moom boo seetee dañoo fonk été. waaw vraiment da ngay tey xale yi de seen couleur yu seen couleur yu flash xam nga. te mooy loolu vraiment. été baa ngi ñëw korité baa ngi ñëw aussi ñu koy waajal nañ waaw. mën nañ ne pare nañ ñu ngi ñëw. mais est que parfois dina leen arrivé ngeen am client bu mel ne Amina bëgg tusi bu amul fenn boo xam ne moom kese moom moo koy am. mu ñëw à l'avance cérémonie. Mhm. pour ngeen. ci créer ko benn tissu boo xam ne hors série lay doon pour moom kese ndax loolu dina leen arrivé souvent ak seen client loolu koy mën naa ne que chaque jour mu arrivé ñu mais sant yàlla moom ñëpp ko wóolu ku fi ñëw sax bañ na ko ba li nga naroon wax sax danga koy bàyyi ndax dèjà li nga fi gis moo lay moo lay jooyloo xam nga ndax ñun yéen lañ fi nekkal nit ñi lañ fi nekkal bëgg ñuy sañse seen mariage seen i baptême ku fi ñëw takk jàkka yi simple yi sax boo ñëwee am na fu ñu lay génn xam nga moo tax boo ñëwee fii doo inquiété wu naan ay tissu bi dama rek sant yàlla dafa raar ay xam nga moo tax jaratul ngay nekk fii naan ay dama bëgg. dëgg la mais aussi xale yu jigéen yi dañu farataal léegi seen takku jàkkee yi ñuy def. fulaar yi est-ce que yéen a ngi bàyyi xel loolu. si si si si ñun fépp rek boo ñëwee fulaar yi ngay teg sa kaw et yooyu moom jarul sax war ndax yooyu moom vraiment mën nañu ne mooy suñu sud yi rek. waaw mooy suñu sud rek waaw vraiment. waaw mbokk yi dégg ngeen loolu Baye Ada wax ci fulaar yi nga xam ne moom la marié yi di teg ñoom nag ñu ngi fii sant yàlla boutique ñu ngi fii Colobane marché Gambie su ngeen ñëwee rek di ngeen fekk fii waa sant yàlla tusi nag bu ngeen bëgg am na waaw Baye Aada bëggoon naa tam ñu am fu ñu taxaw tuuti ci prix yi. parce que san ba léegi maa ngi gis clientes yi di dugg ak di génn. est ne nit ñi ñoom bu ñu ñëwee rek prix bu xaalis lu ñu am ci xaalis rek bu ñu ñëwee su ñu bëgg dinañ ko mën a am. waaw loolu moom day am ndax loolu boo gisee ñun moom ñu ngi am ay boo ñëwee ay variété tissus yow boo ñëwee yow mën nga ñu bañ na nëbbu nga wax ñu sax som li nga prévoir lii laa jël intention bi. soo ñëwee dinañ la dugal foofu ndax fii moom prix yi différent du ay prix fixe ay prix boo ñëwee dañuy discuter waxtaan bi ñoom te dina am li nga bëgg ci kàttan yàlla prix yi moom c'est abordable dara métti fi dara métti fi ñëw leen sant yàlla ñëw leen sant yàlla waa dégg ngeen loolu Baye Aada wax foofu. lu ngeen bëgg nag bu ngeen ñëwee fii sant yàlla boutique di ngeen ko am incha allah. parce que ñoom ñi ngi def jersey ñi ngi def soie ñi ngi def chantou ñi ngi def velours tout ci xew yi nag cérémonie moom ñoom ñoo ci mën. lépp lu ngeen bëgg rek su ngeen ñëwee sant yàlla boutique fii Maïssa et Frères di ngeen ko fi fekk macha allah fekk fi aussi seen personnel bu qualifié boobu. bu yànj boobu bu mën a recevoir ay clients mbokk yi nag dégg ngeen loolu Baye Aada wax nee na prix bu nit am rek xaalis boo am nu mu toll si macha allah di nga ko am. Baye Ada ñu ngi lay gërëm bu baax waa Dakar Midi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokk yi ñuy seetaan. waaw waaw ñu ngi leen di jëfal bu baax baax baax waa Dakar di voilà di leen euh, wax adresse bi ñu ngi Colobane marché Gambie euh, à côté di euh, caserne Sama numéro de téléphone bi mooy 77 906 28 95 wala 77 503 45 99 wala ba tey mën nga woote 77 935 sant yàlla boutique may la fi ngi Sandaga ñi fii. Colobane nag am nañ fi ñetti boutique donc buukande bi moom du fi am ku ñëw si boutique bii rek bu bëree nit mën nga dem ci beneen boutique lépp loo bëgg da koy am man nag mbokk yi maa ngi leen di gërëm bu baax si seetaan bi tey nag maa ngi remercier sama partenaire yi nga xam ne ñoo jaar ci robe bu yanj bi waa sant yàlla jaar ci tissu bu yanj bi macha allah ña nga fashion nag fël fi ku ko robe bu amul fenn def ci ay design génnee touche am loolu yëpp ña nga génnee ko ma dem nag Faramareen coiffure tey ñoom ñoo jaar ci maquillage bu yanji bi ak coiffure bi waaye fàttewuma sama mbokk yooyu nekk HLM ak Sandaga muy waa daa Touba Daaru Minam Touba Daaru Minam chaque jour dañuy jàpp sama combat ba mu mag tey ñoom ñoo jaar ci bijoux yanji yi jaar ci jaaro yi gis ngeen nu mu rafetee te fashion jaar ci dàll yi ñoom tam ma leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax mbokk yi nag ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen jox dig daje seen beneen émission Midi